بالفضائل نبلغ asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam mbokk yi mbokk yi almisbaax tv ñu ngi continué waat suñu suñu darsu ci téere bu mag bi ci faakatu tulaab góor gi mu ne Seex Sidi Xaaji mu ne Seex Sidi Xaaji Maalik radiyallahu taala anhu nee na yaquulu wax na su la neexee nga ne dafa bind téere bëri doo di wax walla dana waxi yaqulu wax na wala dana waxi afqarul abidi gën a aji gën a gën jaa aajooy ci jaam yi sa sataaji Malik nee na moom jaam bi nga xam ne ci dafa aaje woo alfaqru nag suñ ko waxee ci nit yàlla mooy koo xam ne ci amul benn aajo ci dara lu dul suñu borom subhaanahu wa lépp lu dul yàlla rek loola moom ñàkk na ko as siin yi kay ko jóg siin ci dëkk sa sëriñ Malik ma nga dëkk siin siin nag siin Demba Bunna ca Jolof fa la yàlla dogal Cheikh Seydi Hadji Malick dëkk fa maam Ousmane radiallahu taala anhu di way juróom wu maam di maam Demba Bunna raaji yàlla afi kadi aji yaa raaji yàlla afi mi aji yaakaar njéggalal njéggal wala balaa nga koo ki nga xam ne yàlla mi nga xam ne ci mooy branko bàkkaar yi almaanii ka di aje tere maani nag min asmaillaahi la bokk dañuy wax ne yàlla su la xañee dara may na la da nga koo rek yàlla lum la xañ may na la ko su la yàlla xañee wér ba nga tëdd ci lal hôpital may na la lu ëpp doole wér danga nga koo mooy kenn du tëdd ci lalu hôpital di xalaat mooy yàlla wala di xalaat lu neexul yàlla te toog nit ki rek toog xalaatu leneen lu du yàlla rek loolu lu ko gën a ëpp doole ci àddina amut alxas yi nii ka di ñoŋ wala ñoŋal ka di aji ñoŋal almaxrib ko jug maxrib la sa sa sa ko jug maxrib la dëkk yonent bi nag waxoon na ne mujj jamono wala yu jamono mi ngi feeñee maxrib moo tax Cheikh na Tijaani Chérif radiallahu taala feeñee maxrib almaliki yi fekkee ne nag ci côté ci côté mazhab la Cheikh Seydi Hadji Malick nee moom ci mazhab imam Malick la bokk lu tax mu bokk ci mazhab imam Malick nag imam Malick radiallahu taala anhu dafa bokk ci ñi nga xam ne ci mazhabam ñoo ëpp doole ci mazhab yi te yonent bi tamit junjoon ko na waxoon ne jamono dana ñëw nit ñi di dóor seen loosu giléem yi di ñëw fii ci eh, Madinatu Munawara di ñëw ci alamul madina te ñëpp xam na ne imaamu malik moo toogoon fi yonent bi toogoon daan jàngale al ashari yi fekkee nañ ci wàllu pas-pas la te mooy aqida aqida imaamu abu hasan al ashari la bokk ndax mag ñu bëri ci la ñu tënku ci wàllu tawxid ndax dafa nekk koo xam ne ci ahlu sunna wal jamaa ñoom ñëpp dajane na imaamu abu hasan al ashari tawxidam dafa dëgër nee na tuddee nañ ko malik Malik mi nga xam ne imaamul achar yi mooy imaamul achar te mooy imaamu Malik radiallahu taala anhu moom lañ tuddee Cheikh Seydi Hadji Malik alhamdu mbooleem xaaji cant yi ñeent yi lillaahi aji saxla neer buur yàlla nee na alladi yàlla mi nga xam ne axyaana moo ñu dundal ay yooni yoon kon am nañ dundugun jaar avant ñu ñëw fii axyaana ay axyaanan yàlla dafa ñu dundal rayaat ñu dund laat ni mu ni ñuy rayee noonu la ñuy dund laate min baadi ma amaatanaa gannaaw ba mu ñu rayee ba tey tamit axyaanaan ay yoon yàlla ni mu ñu dundle woon ay yoon moom la ñu rayaatee ay yoon alaalimi kari aji xam yàlla mi nga xam ne ci alxay yi mooy aji dund gu amul app te amul fu mu commencé alazimi kada aji màgg ëpp lépp wala nga ne alazimi niami kada aji màgg ji xéewal ndax ismu faay la waaye dañ ko dawal te waaye sifatul musabba moo tax daanaka màgg ak yàlla gi ak xéewalam gi duñu teqli ko nee na yàlla mi nga xam ne murshidi man mooy aji xippiloo ka nga xam ne al murshid nag mooy xippiloo sa bëtu xol bi man ka nga képp koo xam ne ci ami gumba na an turiq an turuqi rushdi wala fi yoonu xippeeku nit xolam mooy gëmm waaye su xol bi xippeekoo rek nga xam yàlla nga am mos dara ci yàlla xol moom mooy lépp su xol bi jaaree yoon rek lépp jaar yoon ne yonent bi waxoon ci xadis am na lu mu am na cër bu nekk ci nit boo xam ne ci su yéwénee léppam yéwén waaye su yàqoo léppam yàqu ñu ne ko loolu lan la mooy sallallahu alayhi wa sallam mu ne loolu mooy xol xol boobu noonu nag loo koy defar te lan man koo man koo man koo man koo man koo defar ba mu jaar yoon kooku mooy nga am sëriñ bu mat sëriñ bu mel ne Cheikh Seydi Hadji Malick Cheikh ah, mu ne yàlla mi nga xam ne mu sahilil matlubi mooy aji jàppandal li ñuy sàkku wal muraadi ak nam-nam yi li kulli man ñeel képp koo xam ne laazama taqoona bil awraadi ci wirdo wi nee na kon wirdu tijaan bi muy bëgg a jàngale képp ku ko taqoo taxoo wirdo wi nag lañ ci namm mooy soo demee ci sëriñ bu mat sëriñ mu jox la charte tarixa bi nga nangu mu jox la ko lay charte tarixa bi nga nekk ci su lépp loo xam ne ci tarixa bi dala koo tere nga bàyyi ko ndaxte charte tarixati li tarixati laa li cheikh charte tarixa bi tarixa bi la kon nit ki li koy tënk ci biir tarixa bi ci charte yi lay doon li tax timit muy génn tariqa bi ci charte lay doon rek kon ku nekk ku téye ci sart yi di ko doxal ne sa daa daajmaa nee na di ko doxal na nga war a doxalee moo tax mu ne li kulli man képp neel képp koo xam ne laa sama taqoo na bil awraadi ci wirdo wi xamdan hmm? danaa ko sant ak sant nag ala inaami ci ay xéewalam yu waa fii boo xam ne matala dana matale kama comme ni nga xam ne ci ala mazidihi ci dolleem yu kaafi lay lay matal sëkk su ma topp salaatullahi julli yàlla wa salaamullahi ak salmalo yàlla ala nabi yàlla nekk ci ki ñu solo annabi yu nag am na ñaari prix su fekkee naba ah lay fi lay la la bàyyeekoo day firi yonent bi nga xam ne ci moom la yàlla solo ci lu mu mën di wax wala nabawa bi firi tund am yara saaluuna an nabi al azimi yonent bi daal léppam yàlla al muhrimil malaahi yonent bi nga xam ne ci mooy aji araamal foy malaahi li ñu ca déggee mooy foy yëpp araam al muhrimil malaahi yonent bi nga xam ne ci fo ñett rek moo ci dagan li yeneen ñi ngay gis nit ñi di ko def ba jox ko yenn valeur yi ba mu niru ba mu lu nekk dëgg loolu nekku dëgg yonent bi sallallahu alayhi wa ñetti fo la soxna te loolu soo demee ci naaw loolu istisna munqatin la soo ne jaa xawmu ilal ximaar dañuy xam ne imaar laysa min al xawm kon settee gin settee ñetti fo yu kon ñett loolu sax dund ay fo kon fo yëpp a xaram mu ne wa aalihi ak ay ñoñam wa bi ak ay sahabaam wal aali ak ñooñu yonent bi wa bi ak sahabaam yi nga xam ne ci zawin infaaqi ñooy ñooy borom ak dépassé seen alal ak seen kàttan murdi ñooy murdi murdi ñooy di aja alage zawil ilhaadi ñooy ñi nga xam ne ñooy war dënge saaba yi nga xam ne ci képp koo xam ne ci dëngee ne yonent bi sallallahu alayhi wa ñoom ñoo lay teg ci yoon wa nifaaqi ak ñi nga xam ne ci tamit ñooy borom ak euh, dépassé ñooy jariñu di dépassé nafaxa fi firi dundal ñooy dépassé seen alal dépassé seen kattan dépassé seen lépp wa man képp ko ak képp koo xam ne xafaa xeñtu na aadaara jeexantal ke Tijaani jeexantal na Cheikh Seydi Ahmad Tijaani daanil xutufi ka daa ji jege ji xottuteef Cheikh na Tijaani ay mbiram dafa jege nee na mi ngi mel na xam nga garab yi bokkuñu am na garab yu rëy yoo xam ne dañuy ne kawe mais seen meññat nañ pour nga mën see jot il faut nga yéeg coono nga ci daj Cheikh na mën ngaa jaaxaan ni maa ngi ñëw ba tolloo rek nga nga nga lekk kon cheikh xottitéefam dafa jege moo tax mu ne daanil xutuufi kat aji jege ji xottitéef inda kulli jaanin fas bépp aji sàkkoo wat wala nga ne sàkkoo lu doon rek nee na aaxidi aji jëlee la wirdihi wirdoom wi an rasuli ci yonent bi salallaahu alayhi wa sallam nee na cheikh na tijaani nag wirdo wii mu yore mi ngi ko jëlee ca salallaahu alayhi wa mu'ti lladi mooy aji jox ji nga xam ne yarjoo dana yaakaar ku la suulin bépp càkkatéef bépp matlab rek booy sàkku rek soo ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi mooy bunt bi mooy yaakaar bi mu ne taban ah Cheikh Sadji maa ne xam na ne comme yonent bi ak Cheikh na Tidiane bokkuñ jamono te ñu ne Cheikh moo jëlee ci yonent bi dana am ñu taxaw weddi loolu tabban nag dan koo nasab kon yaa taban la woon woo naa taskare woo naa dagg na wala xolu tabat da bëri li firi dana firi dagg dana firi koo xam ne ci xelam dafa dagg mënut a xalaat xalaat bu jub koo xam ne ci yiwam yëpp a dagg ni Abu Lahab koo xam ne ci timit yéeféer la tabat yéeféer na wala nga ne dagg na li ñeel képp koo xam ne ankara weddi na haada qiila bi la wax te mooy sallallahu alayhi wa moo jox tariqa bi Cheikh na Tijaan yi te wama lahoo dédd ko ñeel moom waa ji weddi loolu dalilun benn tegtal ilaa xiila loolu neef na daal ñaar ñu bokk jamono mënuñoo gisante neef na xiila foo ko gis ci baaru arab mooy wax bu doyee di la lool nee gaa yi daal nee na nangam loolu rek mooy waxam te gaa yi seen wax taxawul di taxaw mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla wax na ko ci aw xuraan ne ko da nga taseeg yonenti yàlla Muusa te bul duut duutal te nanga nga da nga ko gis wala takun fii miryati min liqaa'ihi te ñëpp xam na ne yonenti yàlla Muusa ak yonenti bi bokkuñ jamono du dëgg defee yooyu yëpp day tegtale na kon nit mën naa gis nit koo xam ne ci fàttu na te ñoom ñaar bokkuñ jamono loolu nag weddi ko mu ngi ci weddi kat nag yàlla ndax yàlla lu mu tëli amul law yàlla wax ci yéeféer ci alxuraan ñoom dañuy mel ne dañuy dugg ci cadre boo xam ne ci dangay dugg ci cadre yàlla parce que yàlla mooy koo xam ne li mu xamul rek amul mais nit mën naa réere dara te loolu am waaye yàlla nag mooy koo xam ne ci lu mu réere rek loolu amul te yàlla réerewul dara sa seddaaj maalin radiyallaahu taala nana amma ñu bët dañ koy dañ koy sadd nag te kenn du ko sadd amma rek la amma du amma amma la ndax wu ndax war aji weddi ilmu ma xam xam-xam ba nga xam ne bii ci moom te dàmm na làmm na ko shariatun nga ne ko waaw kii weddi kay war naa xam li sharia làmm lépp ci ay waxam sharia nag dafa yaatu ñun ñun suñu waxee sharia rek dañuy yaakaar na mooy fiq parce que alxuraan ak xadis lépp ci biir sharia bi la bokk ak yi matières yi ngay jàng pour xam sharia tamit jumtukaay la ci sharia nee na fan tëbi na nga yeewu ci loolu وقال من قال وقنا الامام نجيت له الشافعي كي الشافعي ما امام مطرم محمد ابن ادريس له تدو مام مام مطرم ما نيت مام مطر سنك وخه ما سنيار سباي مام جاو سمام مطر لا مام مطرم نك متدو الشافعي نانا انه نقول نقول لول تي ويد لو خامني تي خمو لو تشريع وخ ركنون بونكو لا من الشرك تي بوكاله fa jaani ban hu na ko teet nu taw kii du shadid nee na bokk euh, weddi loo xam ne ci xamuloo lan la ca sharia wax nee na bokk na ci ponk yi nga xam ne ci moo gën a rëy ci ponk bokkaale yi ndax da jàpp na yow lépp loo réere rek xamuloo ko rek loolu amul te yàlla soo jàngee ci tawxiid du noppi dafa jomm yàlla di wax ba si yàgg muy noppi kon yàlla nag noppiwul ba fii ñu wax yow yàlla mi ngi wax rek ñi ngi dégg ñi ngi dégg xam ñi ngi xam yàlla nag waxam yooyu ñu muy wax nag te bokkutoo alxuraan salaatu faatiha bii ñu yore ci la bokk nee na man képp koo xam lam yuxit peegut bi jumlati sharia ci mboolem sharia yi inkaaruhu ak weddeem zariatun jotlikuwaakoon jotlikukaay la li mahlakin la bi maanaa ilaa la li mahlakin jëm ci alku maanaam képp koo xam ne ci mi ngi weddi te moom péegul sharia te sharia peeg ko xutbu zamaan rek moo ko man wala koo xam ne ci xutbu bi moo la jàngal xutbu zamaan moo mën a peeg sharia ndaxte soo yéegee ci maqaam bi nag yàlla da sol sharia bi lépp tamit même kim jàngal tamit du àgg ci niveau boobu ndax kooku àggu ci niveau xutbu zamaan man lam yuxit bi jumlati sharia inkaaruhu li mahlakin zaria wa innaha naka sharia nee na jaa at dikk na moom sharia ala sittina juróom benn fukk baada mi baada salaati mi atin gannaaw ñetti téeméer tuftiinaa dañu ubbee soo demee ci téere yi indi na xadis yonente bi salaa sallam am ñu wax ne ñetti téeméer fu ko ñett la am na ñu wax ne waaye soo demee ci usul la lay wax ne mafhumu adad la yox sa maanaam ci mafhumu adad moom suñ ko waxee mën naa tegtala lu ëpp loolu la moo tax Seex Alxaaji Maalik indi ñetti téeméer ak juróom benn fukki sharia ñooy am te sharia bii ñu nekk benn la ci ñetti téeméer yooyu kon peeg sharia yombut wa baadu gannaaw loolu nag fal maqsuud li ñu jublu bi iraafi ci boril raafu mu firi bori ni ñit boree bakkan yi di génnee deret loolu Seex Alxaaji Maalik indi na man maa ngi boreel nag unoofal aqlaami bakkani xalima yi ni mu fobee xalima gi sapp ko ci daa ji ni mi tooyee di sotteeku noonu loolu lay niruloo ni nit di boree unoofal aqlaami bakkani xalima yi li dil isaafi ñeel boroom ak sàkku wala nga boroom ak may ki nga xam ne ci mooy boroom ak sàkku gi wala boroom ak may nasmu lazi nasam la nga xam ne mooy mooy xabar ja rek nasmu lazi mooy xabar ji yu yufiidu dana jariñ lil muridi ñeel aji sàkku ci yàlla tariqati tijaani tariqati tijaani bi nga xam ne ci bi tas bi tas wii di bi tas bi tas bi tasriidi ci toftale yaa ngi dégg samaytuhu tuddee naa ko nag faakati tulaab laa ko tuddee tuddee na téere bi faaki ak foyteef boo xam ne ci mooy foyteefu càkkuteef yi ismu fail li fiil ji jëf lay jëf nahda tijaani yoonu Cheikh na tijaani Chérif radiallahu taala mi nga xam ne ci xaalisil aslaabi aji sell ji ay cosaan la ismu faayil la boo tey buñ daw waaye dafa waaye sifatu musabba moo tax sell gi Cheikh na tijaan sell sell googu noonu ak cosaanam yi duñ teqali ko mukk wa jaamia maraami aw waaw gi bi maanaa aw la wala jaamia maraam wal muxtaaji ak aja ajoo min wirdi ci wirdi li maalikin li saalikin ñee aji soobu muxtaajin ko di aji aajowoo benn bi ismo faa'il la benn bi ismu maf'uul la góor gi nee na woo faasa texana man képp ko xam ne jaayante na awliyaayu wali yi misla lazi comme ñi nga xam ne ci baayaa jaayante na nag an anbiya yonent yi kon mbokk yi ñu yem fii ba beneen yoon ci Misbah TV ñu ñaan nag mbokk yëpp ñu dem ci youtube bi pour mën a xool lan mooy Misbah TV seen liggéey ci ëtt kër Cheikh Seydi Hadji ngir rek jàngale leeral lan mooy njàngale Cheikh Seydi Hadji ak lan mooy liggéey Cheikh Seydi Hadji Malick ndax nit ñi mën see jëriñoo wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ومفتاح الخلود وختم القلوب